kon yaakaar naa ni euh, moom lii rek mooy bëgg-bëgg mooy ñëpp nekk ci siraatal mustaqim sëñ Moustapha Alaaji Baara Pape mi ngi lay nuyu sëñ Abdoulahat euh, Fata mi ngi lay nuyu soxna Kiné moom sëriñ Abdoulahat ak président Idi Thiam euh, ñu ngi koy seetaan taalibe sëñ Daawuda Jabu mag boobu nga xam ni Seydi Xaaji Maalik ko joxoon doomam waaw mu baax mi soxna Bali Muntaqa moom tam nga xam ni Baye Fallou Cheikh Muntaqa la waaye soxna May moom Serigne Modou Fati Xëri soxna Mominatu Kebe ku baax ndeysaan soxna Momi moom Cheikh Abdoulahi borom dër bi soxna Mame Marème Fallilou mbooleem ñoom ñëpp ñu ngi lay nuyu waaye suñu cousin alxaaji Duudu Mbub euh, transitaire moom suñu bàjjan Magar Samb Serigne Cheikhouna Ridis moom tam mi ngi lay seetaan bu baax ak Serigne Mamour Mbacke bu baax ñoom ñëpp ñu ngi bég ci émission bi euh, li nekk suñu téléphone Moustapha Sare suñu xarit Ale Fall suñu jarbaat li nekk téléphone bi Pape euh, mënuñu ko suñu jarbaat la lépp mënuñu ko wax waaye daal Pape li des ci waxtu bi daanaka fanweeri minute la waaye Cheikh Balla Samb ak télévision yëpp dañ ko jox suuf nee nañ dàkku da dàkkuruñ émission bi gàtt ndax dafa gàtt ndax rasulilah yi dafa neex. kon ñu jox ko rasulilah rek sallallahu alayhi wa sallam ndax Serigne Touba wax naa la léegi bi ñuy tàmbali. nee na képp ko am sikki sàkk daal kii la yàlla jiital dof la la classé man sànn an al muntaqa mislul wara fa huwa humrun qalbuhu maa nuwira moom loolu la wax ni man shakka fii kaw ni inni abdillahi muhammadun nurul wara fallahi xaasa rasulillahi ma lam yaalami illa alladi xatabahu bi kalim pap sëñ Touba euh, léppam yonent bi alayhi salaatu wasalaam la amul lenn lu mu dencal dara dul yonent bi xaadimu rasul kon nag euh, rabiatul adab yii mi ñu doon ñu waxtaane ñuy waxtaane tey ci saa ci ci ci ci saratu saalihaat te bii di ñëw altine suñu mbokk Ablaye Diop Bichri bëgg na dugg moom itam dalal la ndax day borom xam-xam euh, mu war ñëw ñu waxtaane sayyidatuna Hafsa kon ci soxna yonente bi alayhi salaatu wa salaam. ah umra ko moom la ñu war a waxtaanee. altine altine bii di ñëw. incha allah waaye nag pape euh, rabiatul adawiya dafa bëggoon yonente bi alayhi salaatu wa salaam. ndax képp kuy jàmm yàlla te bëgg a àgg ci yàlla. yàlla benn buntu la wutal ñëpp muy rasulillah. mooy buntu bi Cheikh moom boo bindee lettre yóbbu ko ca defoo ñeent mhm. bi nag boo bëggee mu dem. bu Thiam ngi lay nuyu nga baal ma. waaw Aliou Seye taalibi sëñ sëñ Abdou Hakim bu bu si bu bu musal ministre d'état mhm. ndeysaan. booy wax yàlla. Mhm. te tudd rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. yàlla du la wuyu. faaw nga boole ci waa ji pour yàlla wax ak bunt bi moom rasulullah. man yutti ala rasul dara jaam. kenn xamul mu toll. naa la wax léegi li ko Seydi El Hadji Malick wax nga ñu wax ma ko li ko Cheikhul Khadim wax Abdourahmane wax ma ko nga xam ne sunu ñaari ma ñi mag ñëpp dañoo baax tey bu ma la wax nga jaaxle li ko Cheikh na Cheikh Saad bu wax nga jaaxle nga xam ne mag ñi kenn ku ci ne boo ñëwee mbindam da nga naan kii est-ce que gënoon bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay jaaxle ci sunu mi xam nga daraja maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi an ñu ne ni mu xëyee ba tuuti xalaqtu xayra xalqi. waaw nag ana waa kër Rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. sotu yaa Rasulillah. ay ma xomaatu xayral xalqi. maami Serigne Maodo. maam yi sëriñ Babacar Mansour maam yi soxlul umm xayri Seexul Xadim laay wax de. maxaamaatu xayral xalqi. maam yi soxna Bali Muntaxa Ahmadul Xadim. ku sopp yaa rasulillahi maxaamaatu xayral xalqi. maa ngi Bachir ak Baara maa ngi def ak Cheikh Mbacke góor ga demoon nga moo jaaree maa yombe jaari wir wiri samp jumaay Touba samp jumaay jaariyam Mouhamed bun Habibullahi al Makkiyu al Maaruf Cheikh Ahmadou Bamba. tu xayral xalqi alaj Mbacke Faye ku sopp yaa rasulillah ma xaamatu xayral xalqi ana bàjjan Faye soppay si gina Mouhamed yooyu le ma xaamatu xayral xalqi Cheikhul Khadim wax ma xaamatu xayral xalqi an xayri rabbi alaj Mbacke yi sawaji muxayabatun nooy def nooy def taqrab nooy def fal taqrab suratan nabi Serigne Mbacke Faye wax Cheikhul Khadim ni dara ji ngir ji mbindeef maqaamaatu xayril xalqi mm-hmm. sëriñ Bamba nee na dara jiy ngën ji bindeef an xayra bihi mm-hmm. Cheikhul Xadim ni soo bëggee xam sama waa ji ni mu mel ci yàlla fal taqra an suurati najmi mm-hmm. demal fële ci alquraan karim saar bu ñuy wax wan najmi suuratu najmi damay wan najmi iza hawa maa dalla saahibukum maa gawa wa maa yantiqu anil hawaa mhm. in huwa illaa wahyun yuuhaa allamahu shadiidul quwaa zuu miirratin fastawaa wa huwa bil ufuqil a'laa summa danaa fatadallaa fakaana qaaba qawsayni aw adnaa fa <laughs> awhaa ilaa abdihi maa awhaa maa kazaba al-fu'aadu maa ra'aa afatumaaruunahu alaa maa yaraa wa laqad ra'aahu nadratan ukhraa 'inda sidratil muntahaa 'inda jannatil ma'waa idh yaghshaa sidratil maa yaghshaa yi maasa xel ba sama taxee sëriñ Bamba ne boo bëggee xam Cheikhul Khadim may wax sëriñ si Ibrahima Fall Sidi Birahim hmm. loo may wax Sidi Sidi Birahim Cheikh Ibrahima Fall nakal kamal loolu nag ci sama góor gi Sidi Birahim Cheikh Ibrahima Fall xutbu salmada bu am fit boobu Cheikh Sidi Birahim Ibrahima Fall lam yasar yuxti riwaaya fi nasar maqaamaatu xayral xalqi الخير ربي مخيابة فلتقرأ سورة النجم شيخ الخديم محمد المختار su bëggee xam kan ay rasulullah mhm. jàngal saar wi ñu ko mu ëmb di koy wax mu ne kooku la yàlla tànn Mouhamadou laa xalqa misluhum maam Serigne Mountakha nee na mbindeef lu mel ni rasulullah alayhi salaam man loolu mrukal xukmi Mouhamadou almaa mawsuufun moom mooy ki nu xam moom rasulullahi muhammadu misaalu lam yaati maam yi sëriñ si Sidi Muxtaar Mbàkke nee na ku mel ni moom du dikkati fi ma mada wa abadan bàyyi Serigne Saliou bàyyi Serigne Fallou nee na ci li weesoog lii bëgg ñëw ku mel ni Seydina Mohamed yeex na sabataana rabbana sax na ni sunu borom ci boppam lam yuridi dootul namm ci moom yàlla namm mislal loxo fa mis moolaay Serigne Bamba nee na ku mel ni Seydina Mohamed yàlla mi bind jàmm ñi moom leen dootul nammati bind ku mel ni rasul loxo siyaadatul bàyyi Serigne Saliou nee ñeen na ko ak can lool bara ah, ñeen na ko ak lay yow ma lastu wala da safa jabar jabar ndaw jëkkër papa ndaw doom bis ba nga xam ne ñëppay tiit kenn de ki ànd ak sagoom Cheikhul Khadim nee na mooy rasulullah huwa nabi nee na kooku la yàlla solo wa rasul mooy ndaw li huwa alxalil Baye Cheikh Abdoulaye Mbacke ne ko ngay xaritu yàlla wa huwa alhabib nee na ko koy soppe yàlla wal imaam nee na ko koy njiit la wa dalil sëriñ Bamba ne ko koy tegtal badiu min xayri jamal yàlla mi nga xam ni mooy badiya moo bind Sidina Muhammad mu dàq lu yàlla wasaano xudoos wan xayri jamal xam ni nee na yàlla yemul ca loola mu ñam ñoŋal koo gën yonent bi gën a mag ñëpp moom rasulullah kawnu rabbil muntaha muhammadi xayral wara muxtaaru inna samadi wa huwa akmalul wara xalxal bii doy waar la béy bi mhm. muy insaanal kaamil mhm. insaanal kaamil mhm. nit ku mat sëkk muy nit ku mat wax mm-hmm. waa ak malul war a xalqan nit koo xam ne da nga naan booy vérifier da nga naan amul défaut. waaw waa ak malul war a xalqan. Baye Cheikh Mourtada Mbacke nee na. tey boobu moom Rasulullah ak malul war a moo gën a mat ci mbindeef yi. wax wa akmalul wara. waaw lu mu leen gën a matee moom Rasulullah waxulu xam zahara. xal xam ci mbind. Mm-hmm. nee na mit ñu rasulullah yi boo nee ko jàkk bu la xoolee da doo xool kenn xarab xal-xal neel xal-xal xal-xal wax ko xal-xal wa xuluxan sara neel wa huwa akmalul wara xal-xal wa huwa akmalul wara xal-xal wax doo leen wax wa akmalul waraa xalxal. wax leen ko wax leen ko. wa wa akmalul waraa xalxal. wax leen ko mu dib ma wane géej gi. wa wa akmalul waraa xalxal. Sëriñ Bamba ni moo gën a mat mindi fi ci bind. wa wa akmalul waraa xalxal. booy liggéey dajeeg moom di nga tardé. wax wa akmalul waraa xalxal. boo nee ko loxo si gi xool ko sëgg si gi. wax si gi wa wa akmalul waraa xalxal. nee na boo séenee mbooloo muy ñëw njool màkk ngay seen ci wax wa akmalul waraa. Ah, xal-xal nee na bu la xoolee nag dootoo xool kenn wa akmalul wara xal-xal bët yi dafa rëy moom rasulullahi wax wa akmalul wara xal-xal yéen yi sew ba noppi sëq moom rasulullahi wax wa akmalul wara xal-xal bopp ba rëy ñañ la sànni ko ci ginnaaw wa akmalul wara xal-xal bu nee la jàpp loxo loxo yaa gën a noy ko toom wa akmalul wara xal-xal boo nekkoon ni mu jox la nopp ba boo bàyyi wudu sigi wax wa akmalul wara xal-xal war ma woon këpp ca kanam ga. wa akmalul wara xalqan. lu yàlla bind moo ci gën a rafet. waaw. akmalul wara xalxal lu yàlla bind moo ci dàq moom rasulullah wa akmalul wara xalxal sëñ Seexul Xadim ne wa huwa moom rasulullah akmalul wara moo gën a moo gën a mat ci mindee fi xalxal ci mind wa xulxan sara nee na wa ak jikko jaa gën a baax ñëpp moom rasulullah wa mislu xattul anbiya wa lam yura fi shiyami boo ko tooñee mu baal la gën a baax ñëpp gën a yiw ñëpp gën a tedd ñëpp gën a sell ñëpp gën a tabe ñëpp gor ñi moo leen gën di gor Sëriñ Bamba ne xalxan ci mind wa xulxan moom yonent bi alayhi ahmaduna sunu mooy sunu yërmande mu sunu cant nihmaduna mahmuduna mooy sunu xéewal mooy sunu mbég musri di yami dégg loolu wal tabu rasulullah musri di yami xeeb tabam nga xeeb na waame waame mooy taw buy sotti ko rek di sotti ko rek nee na tabu Seydina Muhammad xeeb na ko layla fadlil musliina lo wal fadlu wal fadlu inda rasulillahi xaraar raman waraam alaaj bàkk yu fay layla fadlil musliina lo jëwrin sa góor gi wal fadlu inda rasulallaahi xaraa nit ñëpp ngi sàkk pour am ngëneel waaye Ahmadu ne ngëneel benn rek la yàlla jox na ko rasulullah raaman wara nee na raama sàkku na alwara mi def yëpp nay la fadlil muslimina lahu nee na nay la fadlil amu ngëneel muslimina lahu ña ngay njëkkante ngëneel loola wal fadlu inda rasulallaahi xaraa Seexul Xadim ne wal fadlu ngëneel day ñu ni ko amu ne xaraaru aji sax la inda rasulillaahi ci sayyidina Muhammad ahlul fasahati Quran bi sana Amadou. léegi nag léegi. walaay sayudruku bil akwaabi te yaa.